fukk ak juróom benn babel salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu ci li nu mën a dellu tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu lanu jeexaloon sunu njàng ci mbirum yonent yàlla nooyin gisoon nanu ni yàlla dogale woon far doom aadama yi ci kaw suuf ak mbënd ndox ma ndax seen njubadi diirub téeméeri ak yàlla mayoon na bàkkaarkat yi jotu réccu dajeek nooyin doon yett gaal ganaroon a nekk rawukaay ci képp ku gëm kàddug yàlla wante kenn tuubul woon ay baakaaram ba gëm xibaaru aji sax ji lu dul nooyin ak njabootam kon ca muj ga yàlla mi jub tey sàmm kóllëre defoon na lépp li mu dige woon maanaam faroon na képp ku jaarul ca buntu gaal ga te musal ku ca jaaroon ku ne léegi nag nanu jëm kanam ci téereb njaalbeen ga ba xam mbir yi xewoon ca jamono ja toppoon ci jamonoy nooyin ci sunu waxtaan yi nu def ci nooyin gisoon nanu ni mu amee woon ñetti doom sem kaam ak yafet mbind mi daf nuy won ci ñetti nit ñooñu la àddina sépp soqi sem mooy baayu yawut yi ak naar yi lu ëpp ci waa afrik nag ak waa chine ci askanu kaam lañu soqi ci lu jëm ci tubaab yi ñoom ci askanu yafet lañu jóge ku bëgg yaatal sa xam-xam ci cosaanu xeet yi mën nga gëstu ci saar fukk ak ci saar fukk ak benn ci téere bi jëkk ci tawret wante ci sunu njàngum tey lenn rekk lañuy am jotu leeral ko ci cosaani ñetti doomi noyen yi di sem kam ak yafet mooy lii sem mooy maam mi yàlla tànnoon ngir mu nekk baayu cosaanu ramukat bi naroon a gane ci àddina looloo tax mbind mu sell mi gën a toppatoo nettalib askanu sem ci askanam la yonent yàlla yi jóge te it ci moom la musalkatu àddina si wàcce maanaam ci jëmmam kon gis nanu ne xeeti àddina sépp ci ñetti doomi nooyin yi lañu soqi yow ak man ak waa Sénégal yépp waa Gàmbi waa Afrique yépp ak yeneen xeeti àddina yépp képp kuy nit sëtub nooyin nga kon nag mën nanu wax ne su nu fi nekkee tey li ko waral mooy nooyin gëmoon na yàlla ba defar gaal ngir musal njabootam ndaxte bi mu musalee njabootam ci mbënd ma yow ak man la doon musalaale gis nanu ni yàlla barkeele woon nooyin ak i doomam ne giir leen te bare sekki leen fulandewu leen ci kaw suuf te fees leen ko noonu ay téeméeri at gannaaw mbënn ndox ma àddina si tàmbalewaat am nit ñu bare te naka noonu it mu tàmbalewaat fees ak bàkkaar gis nanu ba noppi ne nooyin aki doomam ay bàkkaarkat juddiwaale lañu woon ndaxte doomi aadama lañu ba ñu duggee ca gaal ga nag seeni jukkoy bàkkaarkat ji ñu jële woon ci aadamaa ngi àndoon ak ñoom te ba ñu génnee gaal ga génnaale nañu ak reeni bàkkaar boobu ci seen xol sëti nooyin yépp ay bàkkaarkat lañu woon ndax janax du jur ludul dul luy gas naka noonu doomu aadama itam mënula jur lu dul luy bàkkaar looloo tax nu di ay bàkkaarkat nun ñépp noonu gis nanu ne gannaaw ay téeméeri at lu ëpp ci askanu nooyin faaleetuñu yàlla ak coobareem gëmatuñu kàddug yàlla ni seen maam set enok ak nooyin fàtte nañu yàlla te gërëmuñu ko ci limu leen may dund gi ak bakkan ak naaj wi ak taw bi ak ñoom seen xon gi yàlla tegoon ci biir niir yi ngir fàttali leen kóllëreem xamatuñu woon sax lu muy tekki déglu leen li kàddug yàlla wax ci seen mbir mu ne bi ñu xamee yàlla taxul ñu màggal ko ni mu ware mbaa ñu sant ko waaye ñu daldi réer ci seen biiri xalaat yu mujjul fenn ba tax seen xol gumba ba lëndëm këruus ñu teg seen bopp ni boroomi xel fekk ñu ñàkk xel lañu woon toxal nañu dëggu yàlla tëral fen di màggal ak a jaamu mbindeef ba faaleetuñu sax aji bind ji yelloo cant ba faw amin ndax dëgg ngeen ni sëti nooyin doon doxe ni kayin ak askanam lu ëpp ci ñoom tànnoon nañu suul dëgg gi te topp lu juba di sàkkoon nañu seen diinay bopp te toppatuñu yoonu njub yàlla tëraloon amoon nañu diine wante diine ju dul dëgg la woon ndaxte dëppoowul woon ak yéene yàlla dégluwuñu kàddug yàlla gu wóor gi seytaane dong lañu doon déglu amoon na ku tudd nimrod te soqi ko ci kaam mi ñaareelu doomu nooyin nimrod rëbb bu mag la woon ma nga doon dund daanaka juróomi téeméeri at gannaaw mëndu ndox ma turam a ngi tekki weddikat nimrod amoon na xam-xam bu rëy waaye xamul woon yàlla tànnoon na weddi kàddug yàlla dafa jaar ci yoonu seytaane ak yoonu kayin ak yoonu niti jamonoy nooyin di bañ fu yàlla nimrod tabaxoon na ay dëkk yu mag te ca mujj ga fasoon na yéene samp benn dëkk bu rëy fu àddina sépp mën a dëkk nekk benn dëkk booba ngi tuddoon babel nanu jàng léegi ci saar fukk ak benn ci téereb njaalbeen ga ngir xam lu mbind mi wax ci lu jëm ci dëkk bu rëy ba nimrod ak ñi àndoon ak moom façon yéene tabax mbind mi nee na booba waa àddina sépp bokk wenn làkk ak genn kàddu bi nit ñi toxu jëm penku ñu gis jàtti ci réewu sinaar ñu daldi fa sanc ñu ne ay cë nu defar ay mool lakk leen ci safara ba ñu ñor mool yi di seen doj gu doroŋ lañu doon taqale ñu ne ay ca nu tabax ab dëkk bu am soroor bu sar ci asamaan kon dinanu am aw tur te dunu tasaaroo ci kaw suuf kon gis nanu ni doomi aadama fase woon yéene tabax dëkk bu rëy ak soroor bu kawe bu sar ci asamaan lu tax ñu bëggoon tabax sooroor bu kawee noonu seen rëy ak bañ kilifteefu yàlla moo tax nimrod ak ñi àndoon ak moom dañu doon wut tur wu siiw ci àddina si ñu fas yéene dajale waa àddina ci benn bërëb ngir ñu am doole te bañ a tasaaroo ci kaw suuf wante li ñu fasoon yéene def neexul woon yàlla ndaxte yàlla dafa waxoon doome nooyin yi ñu law ci kaw suuf tasaaroo wante lu ëpp ci sëti nooyin faalewuñu woon li yàlla bëgg dañu xalaatoon ne ñoo ëpp xel yàlla aji bind ci wante mbind mi dafa wax ne li nit ñi fonk yàlla sip na ko te ku yëkkatiku dees na la suufeel kuy suufeelu ñu yëkkati la kon nag bu leen def dara ci kaw wut aw tur walla wanu màggal mbindeef wala wut aw tur bàkkaar la fa kanam yàlla ndaxte wenn tur rekk a yelloo teraanga ak ndam mooy turu borom bi aji sax ji yàlla ni ko mbind mi waxe kuy damu na damu ci boroom bi ndaxte ki neex yàlla du ki naw boppam waaye ki yàlla gërëm wante ci jamonoy nimrut lu ëpp ci doomi aadama yi fonk ñu woon turu borom bi yàlla ak kàddoom soxalu leen esprit d'indépendance rekk lañu yoroon dañu xalaatoon ne soxlawuñu kenn di leen wax dara ba tey xel moomu mu ngi ci xolu doom aadama yi danu koy gis ci gone yu tuuti yi sax bu ñuy lànk ak seeni loxo di wax naan ma bañ te rawatina ci mag ñi lu waral xeex yi am yépp ci kër yi ak ci xeeti àddina yi xanaa du xelu indépendance mi xalaat mën naa jiite sama bopp samay aada ñoo dàq sama diine doy na ma ci man sama tarixa moo gën sama xeet moo fi dàq sama giir moo gën a am xel sama tur moo ëpp maana sama bopp sama coobare samay jëf sama xaalis sama sama sama sama judul jeex du xaaj ku nekk di xëcc jëmale sa bopp waaw xelu indépendance moomu moo tax àddina si fees dell ak xuloo ak xeex ak xare wante yàlla sib na xel moomu ndaxte turam rekk a yelloo ndam moo tax mu ne ci kàddoom man may aji sax ji moo di sama tur duma bàyyee sama ndam keneen wante ñi tàmbali woon tabax soroor bu sore ci kaw asamaan seen ndamu bopp rekk lañu doon wut faale woon turu aji bind ji yelloo cant ba faw loolu doy na waar juróomi téeméeri at rekk gannaaw mbëndu ndox mi nit ñi delluwaat ba mel ni ñu meloon laata yàlla di far nit ñi ci kaw suuf dañu meloon ni fas loo ko sang-sang mu xalangu ci ban bi yàlla nag lu mu defoon ndax mënoon na nangu li ñu bañ kilifteefam ndax dina dékku ndamu nit mukk kenn mënul bañ màggal yàlla aji sax ji ba noppi di rëcc ci atem nanu wey léegi ci mbind mi ba xam lu yàlla def kàddug yàlla nee noonu aji sax ji wàcc ngir gis dëkk bi ak soroor bi ñu doon tabax aji sax ji daldi ne bu ñu tàmbalee jëfe nii di menn mbooloo te bokk wenn làkk dara dootu leen të nanu wàcc te safaan seen làkk ba dootuñu déggante noonu aji sax ji jële leen foofa tasaare leen ci kaw suuf ba ñu bàyyi tabax dëkk bi ñu doon tabax moo tax ñu de dëkk ba babel li tekki njaxas ndax fala yàlla aji sax ji jaxase làkku àddina jële leen fa tasaare leen ci kaw suuf sépp kon nag gis nanu ni yàlla fanqi pexey ñoom nimrod ñi fasoon yéene tabax dëkk bu rëy ngir seen ndamu bopp yàlla safaan na seen làkk ba mënatuñu déggante noonu la leen yàlla tasaare ci kaw suuf sépp seytaane ak ñi ko toppoon doon nañu fexe dàq yàlla te noot àddina si wante yàlla daan na leen ci li mu jaxase làkku àddina loolu moo tax ba tey mu am ay téeméeri xeet ak ay junniy junniy kàllaama ci kaw suuf naka lanu mën a jeexale njàngum tay mi ci dëkku babilon xanaa ni kàddug yàlla daf nuy won ne ku nekk ci nun dafa xawa mel ni kuy tabax ab dëkk sa dund mooy sa dëkk bi ngay tabax yàlla dafa bëgg ku nekk seetlu sa bopp te tontu ci laaj yi lan ngay tabax nan ngay tabaxe lu tax ngay tabax ci kaw ban fondement nga samp sa dund sa ngëm ndax sa ngëm ci waxi nit ñiy wéy la sukkandiku walla ci kàddug yàlla giy sax ba faaw looy wut ci suuf sa bànneexu bopp walla coobareg yàlla wan ngay màggal sa turu bopp wala turu yàlla aji saxte gan ngërëm ngay sàkku ngërëmu nit wala ngërëmu yàlla li peng mooy ngërëmu nit day wey waaye ngërëmu yàlla day sax ba faw booy wut nag nanga wut ngërëmu yàlla ndaxte mbind mi nee na ki neex yàlla du ki naw boppam waaye ki yàlla gërëm mbokk yi fii lanu war a yam tey jërëjëf ci déglu bi tey jii nu ngi toll ci sunu fukkeelu njàng ak juróom benn di leen fàttali ne njàng yépp dajale na leen ci ay bandi magnétophone su fekkee ne bëgg ngeen leen a am ngir dégluwaat li nu jàngoon ca ndoorte la ba tey mën ngeen nu bind te dinañu leen wax naka ngeen mën a def ngir am leen sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub PP 370 Saint-Louis bu soobee yàlla émission bi di ñëw dina nu nafar lépp li nu jàngoon ca ndoorte la ba fi tey yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li mbind mi wax naan nit ñax la ndamam di tóor tóor kese ñax day wow tóor tóor ruus waaye kàddug borom bi day sax ba faaw